journaliste yi ñoo ma invite ma am fa ab présentation at Metsi Hotel ma dem defal leen présentation bi mu kool ma ma ne ko ne loo maa doyee mu ne ma ne ñëwal Sénégambia ma ne ko Mike straight bu ma waxee ñëwal Sénégambia si police bi ma ne ko lu ma faa uti ma ne ko Mike mu ne ma naa mu ree ma ne ko lu ma faa ut si mu ne ma dama am friendly friendly conversation ak yéen foog ma wax friendly friendly conversation laa am ak yow dama bëgg a ñu waxtaan rek. ma ne ko Mike ñëwuma seven times ma ne ko ñëwuma moo daan dat ma ne ko ñëwuma mu ne ma déedéet ñu war rek friendly conversation wax wax wax wax ba waat bar wallahi yàlla kenn du ko foyee yow yaa waatal yàlla nga waxuloo ma digga ma dem mu ne ma waaw ñu wax mu wax ba pare bu mu waxee génneel ma lu ma gën a naxari mooy nga génneel ma vidéo bu ma tudda IG ak First Lady ngeen lu tax ma tudda leen loolu la ma wax Mike loolu la ma wax mu ne lu tax ma tudda leen IG ak First Lady naa foo leen ma yóbbu ma dem ba si laas dot foofu laay téye mu ne ma lu tax ba wone ma wax ñooñu seen tur ma ne ko alaj laa wax te ñooñu ñun am nañ right pour tudda leen lu tax ñooñu who are they they are serving us suñ ko bëggut ñu resign plain xam nga mais bi Massi Mohamed da Mohamed comédien la te lu mu wax moom moom xam na lu mu wax te lu mu wax man du ma musa wax loolu right moo dafaa dem di ñaan gaa yi Mohamed xamut right tam man dama xam suma right ñaanuma kenn te ñoom duñ ma ñaan tamit ñaanuma kenn te ñoom duñ ma ñaan waaye Mike I am really disappointed ni ngaa liggéeyee su fekkee promotion nga nga bugga wala su fekkee place nga bugga dafa rong te billaahi di nga ko regret I am not joking daf ma naxari barke alquranul karim daf ma naxari I am sick I am not okay ask them I am sick laaj leen ñi ma jël si ñi ma béel ak ñu ma àndal démba I was admitted xaw ma barki ba si ka eh, eh, am Sénégal bi I was dama dem si lopitaan bi I was very sick and still suma garab yaa ngi nii these are my medicines suma garab yaa ngi nii suma garab yaa ngi nii yeneen yaa ngi si cabinet bi yépp suma garab yi la all these are my medicines all gis ngeen di yépp lay naan am na yu dee ko si biir baag yi billaahi walaay talaay man wéruma dama am su ma su ma stressé dama di am dama di am euh, difficulties of breathing suma ma as su ma su bi daf dee jóg naka su ma am ulcer bi daf dee jóg gis naa ne nag barke alquranul karim digala bu ma bu ma docteur bi fixalee dribs bi ma ko mu nataal suma loxo bi su fekkee dafa bugg a évident évident bi but daf ma video without telling me because dama toon gis ko mu ma video without telling me and they share it xam naa dañ ko siyaa ñu siyaa ko ñoom yi neen loolu loolu lañ gis ñu xam ne ma ngi suma critical condition su ma ma ne leen su ma deyee yéen la ma ne ko wax plain di dugaluñ ma si sel I will be strong Abdoulaye thank you so much Dramé Dramé Kañi I will be strong insha allahu rabbi I am already strong I am strong man su ma nekkoon keneen dof naa Gambia fii rek liñ la dee discriminate liñ la dee criticiser te jigéen la dee nekk ay jigéen ñoo la koo def sa ay moroomi jigéen waaye man dundalu leen ma man dundalu leen ma yàlla rek laa gëm dundalu leen ma ma gis ñoom ay ku ñoo wax Anna Sarr dat fake passing la xam yi mel nii bong bong ñooñu yépp nekkete dañ ma xéet noonu de ma gis seen ay comment man dama leen faale Fale faalewuma malen because dundalu len ma those fake people on social media man dundalu len ma ma ko tudda ma tudda sa man musuma laa like because xam naa ne musuloo like man tam musuma laa like man muna dundalu len ma dundalu len ma soo leen fi di yarame yarame. do len dara you people are all fake yonente bi mo gënoon a bari ñu ko bañ tey ku am kula bañ xamal ne ku nga te yéen ñëpp di ngeen di ngeen si man man malen leen ko wax tay laa ko wax bi is recorded yéen ñëpp di ngeen dingen di ngeen ne xëy suñ xamoon faat jaañ dañ ko jàppa ma de te ma musa xam dina bàyyi leen ma ak suma réewaande bàyyi leen ma ak suma naxari deret bàyyi leen ma ak suma free words waaw waaye man xam naa lu ma xam man su ma doon su doon yéen rek te aw ma yàlla rek man dee naa bu yàgga nit yéen da ngeen soxor doo leen ay nit ngeen doo leen ay nit man faalewu ma leen yéen ñëpp nag daa wax ñii comment négatif comment yëpp yoonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi daaxoon a muñ moo fi gënoon a bari noonu kenn du ko uppale noonu si kaw suuf waaye tey moo fi gën a bari ñu ko bugg te xamuñ ko ñuy ñuy ñuy rey seen boppat moom te xamuñ ko kon nag man who am I mais du ma am ku ma bañ I am nothing I am no one soo gisee ma def time bi vidéo bi xam naa ne su ma ko defoon nit yi dañoo bari te comment yi dañoo bari moo tax ma xaar ba time bii maay def vidéo bi jaajëfal képp koo xam ne am um, um, um, na si affaire bi daal di call for justice you know di ko jikkee si alpha alpha ba aw ma dara lu ma ko fay alpha su ma nit la suma waay la nee na Freda Gomez moo def béel bi moo moo fay béel bi moo bàyyi foofu ID kaatam nee na suma xarit la suma yaay la suma yaay nee na la tudda suma waay la te daf ma bugga man ay noowu maa ko gën a bugga xam nga lu ma si tegal mu ma soo paree tojal ma <laughs> na boobu la ma si tegal aji fanta moo ma si dee wax naan ma fanta ndeysaan fanta yaay caati yaay jaase moo ma dee woon ne Fatou Jagne man maa la bugga lii laa laa wax ak lii Fatou Jagne soo paree defal ma Facebook live nga xas ma aji fanta non la ko fa dee wayee mom daf ma advice di waxale defal facebook live so pare wala demal social media nga wax ma nangam Fat Diagne man dama pou kaga gabe ay eh, Fat Diagne Fat Diagne yo so teye ken dula gen Fat Diagne Fat Diagne yo da nga nii da nga Fat Diagne yo so teye ken dula gen Fat ay eh, Fat aji fanta mo dee wa bay lox billahi moo dee wa bay bugg a jooy rek amul ah Fat so ki nga xamne ne ragaluma koo wax dara ki nga xamne mun jël suma téléphone di wax ak moom lu ma lu ma mun a waxtaan ak moom si àdduna waaw dinañ ko wax ne dafa agressif dafa mun a saaga dafa mel nii ay xamu leen ko gis nga nit ki bu leen ko dee jooj fàddansoo fàddansoo mooy nit fàddansoo mooy gor fàddansoo moo baax nañ leen jël politique ñu teg ko aside gis naa suma kiis bi ñu def politique si biir ay doomi président Adama Barrow ay Fatoumata Ba Barrow mooy sa yaay lii has nothing to do with politics dañ def lu leen nee ba Baro man dama koo tudda ba Baro su ko buggutee mu génn suñ public office bi ba Baro man faat jaañ dama koo tudda tey ba ëllëg IGP inspector general of police dama leen di tudda ba ëllëg duma leen saaga duma leen wax dara lu ñaaw waaye dinaa leen tudda te alej li suñ leen accusé alej li dinaa ko wax duñ ma ko tere nañ ñu bàyyi ñu free lii suñ ko fi continuer Gambia tey man la ëllëg keneen la moo nekka te that Mike war naa bàyyi xelam bu baax a baax a baax wallahi Mike moo laa waatal te lu moo wax du dëgga imaginal maat Mike moo la Mike lu ma waatal foofu waa léegi bu ma waxee ba pare mu waat du dara dangaa lii rek nga ñibbi nga dem ñu yow waxtaan rek friend di waxtaan léegi mu teg si beneen bi dangaa dem bind statement rek billaahi soo bindee statement rek nga dem yàlla kenn du ko foyee Mike bu la doole may bu la doole may naka la waat ya bu la bu doole may dat date naka laa ko waxee pour mu nit yi mun koo understand doole may la date um, uh, xaw ma naka laa ko olofalee biig doole may la date rëy ba yow yàlla danga koo waat sax fekk di ngaa wax amut mu ne ma demal binda statement ma dem binda statement mu it loolu sax is a force si man force wadde wax naa leen that statement am gonna am gonna withdraw it duma ko nangu because Mike daf ma force force force pour ma dem binda statement di man di wax lu nek la ma wax du dara da nga bind rek because xam nga da nga ñew fii te yow nit yu àndoon nga gis dafa nek evidence man dafa reference reference nga gis because yang ngi te lu mo wax te dara amul koku bind ba pare mu ne ko tiaj ko tiaj ko for false information what false information imaginal police dama bañ ba indi dem suma kër pour ñu jël suma laptop bi laptop bi defuma fa password kon ma degu doyut de bu mu buñ ibee bunta bi dama leen wax ne man duma dugg suma néeg because dama weex dunga yow si jànga ba pare dama leen ne bu kenn sol uniforme because soo leen ñëwee si koñ bi ak uniforme mun ngeen di ekati nit ñi ñu sol loolu leen buba ñu sol buba rek a soloon uniforme te driver bi dama ko wax na wàccat si Johnson bi yépp pour kóob ak ñoom yëpp pour toppa yoon yëpp pour bu ma yaaxaluwaa lii laa demee ak police yi because after Mike bu ma disappointé ba pare mu jël suma téléphone bi mu ne ko caaj ko ñu caaj Accept nga caaj bi ma ne leen accepte ma ko life yu bi dafa no bu rëy capital accepte ma charges du ko accept why am I charged and charged for what what did I do ma laaj leen those questions ma waayal fa nag waaw waayal fa nag fekk kilifa yu bari ñu fa kilifa yu police yu bari ñu nekk Banjul headquarters ñu ngi ñu ngi because foofu lañ dee bees ñu si bari foofu lañ dee ñëw toog foofu lañ dee waxtaanee because dama gis ne lii su ma ko bàyyee mu yomba rek wala ma wone ay ragal ay panique rek then these people will abuse me te man dama xam lu ma nekk di def defuma dara defuma dara yéen soo leen buggee ñun ñu nekk jaama nañ leen nekk jaama waaye yéen soo leen ko buggut rek nañ leen demee noo leen ko buggee because yéen yéen li ngeen di def xam ngeen ne du yoon li ngeen di def xam ngeen ne du yoon xam ngeen ne du yoon xam ngeen ne du yoon man duma ñëw di leen bége bége duma ko def wallahi du ma ko def and I was told because xam nañ ne am nga lii rek dinañ fexee luñ la créer les problèmes ba lii la waaye ñu ñu ngi leen dem dañ leen dem yéen da ngeen tax ñu accuse ma man ne man I am an informateur de police waaye I am a good citizen. kaw su bu ñoo wax sàcc sàcca ni yéen a ngi koo dégg kaw su bu ñoo wax 90000 la sàcc yéen a ngee dégg loolu 90000 si si si si si lii bi. imagine leen kaw su contact gu kenn Gambia directly dafa bañ a contact kenn koo contact mu xuloo ak yow kaw su man la contact man man la kaw su contact man. man Fatou Diagne may neexal kaw su pour mu ñëw ñu jot xaalis bi ñu delloo borom xaalis bi waaye man lim wax defut dama leen di woon exemple rek how young people believe in me mu ne ma ma ne ko ne waaye dinaa make hal, kenn du toroxal ma wax ak police seen boppa ñu ok let me block you man la kaw su reach out pour ma wax leen ko Gambia yëpp ngeen xam on mes on on TikTok TikTok la ma reach out TikTok la ma reach out waaye ngeen jël lii di ko politicize some people are are dañ daf dañ ma dee jaaxal because only a stupid person will take this di ko politicize pour lan ëllëg mun naa nekk yow waaye dama jànga man man dama jànga waaye tiitalut ma te yóbbu ma fen wallahi I will always stand for justice I will always stand for what is right waaye dama jànga maa pare si Gambia raxasu si Gambia waaye taxut lu ma stand for dama faa stand for tiituma si ragaluma si te su ay jii néemam ñëwee op pour ñu tudda ko dama koo tudda fes le di su néemam ñëwee op pour ma tudda waaye maa pare si Gambia man di ngeen gis changes bu rëy waaye nekku tiit ak ragal nekku tiit ak ragal fii ku fi abuse nit dañ koo wax waaye Mike should be very careful nu moo demee dafa bon te dafa xaraam yéen ak maa dégg kaw su man la reach out ma ñëw foofu noonu foofu dama ko ma tegee boobu saay tamit duma si continuer amut luñ ma waxut ci affaire police man informa laa man lii laa but I am a good citizen bugguma dikka bi mu yaaxu musuma report lu bon pour soxoree nit musuma koo def te musuma nangu police abuse kenn te suma fanse police yaa fa gën a bari ma wax leen ko ngeen xam ko fu ma dem billaahi wallahi tallaahi faat jaañ bi faat jaañ bi daloo suñ ma gisee sax dañ dee waaru jaaxle téye seen gémmiñ ñeena ñi di ma wax ne xanaa lu xew ah faat jaañ yow nga xam ne dëgg rek ngaa wax fii ku bëggul dëgg rek moo laa bañ man képp koo xam ne bëggul dëgg te xam na ne am na lu ma yàlla may te mayut ko ko rek moo bañ waaw man ñu ma bañ yépp foofu laa leen téye lu ma yàlla may te mayut la ko li ma am te amuloo ko sa mbokk amu ko sa doom amu ko sa rakk amu ko sa benn famille member amu ko ni ma mel te meyul meluloo ko moo tax ngeen añaan man noonu laa ko gisee képp ku ma bañ loolu la because doo wax ne man dama am xol bu bon tey soo gisee nga ne dama réew wala dama xamadi wala man dama du ma neex laa dee wax yow soo nekkoon ku baax wala nga nekk mag oo nga nekk xale dangaa am nooy ricc awteetu man naka la ko aji fanta dee defee man dama gën aji fanta te war naa ko jot dat mu utmost respect ak keneen ak keneen ak keneen ma jekkali suma ngërëm bi Néné Freda Gomes Aji Fanta Caati yaayam Jaasi faatu Danso Fatou Camara Junior Fatou Camara Junior xale bii di nga xam ne yow ak góor yéen a koo yéen a digaaleel yow yaa def lii di xam ne yow ak góor yéen a koo digaaleel Alpha waaye nag rawatina nag Omar Waali Omar Waali Omar Waali Omar Wali yow yow yow man man suma sa dama joy jeri jef Omar Wali yan na yàlla gudal sa fan yan na la yalla defal jama yal na lépp lu la sa non eni yal na ko yalla ko lu gën a lu gëna a ëppaloolu si bi ak yeen ñi yeb taxawal ma ay jeri jef Omar Wali one of the best journalists in this country ko xam ragalu taw wax diga te fact rek la dee bugg am Omar Waly du binda te déggewul si man ma wax leen ko lépp lu Omar Waly binda man maa ko wax I was communicating jërëjëf Omar Waly kër faatu du ñoo jiboo nag ndeysaan dañ ko bañ ñoom ba def ma duma mun a comment waaye yéen maa leen jàppa tey yéen maa leen jàpp ba xam ne maa leen jàppa ok Fatou Touré duma ma lu bari you dafa am benn issue bu ndaw rek boo xam ne dama ko ko meree woon dama ko ko meree woon waaye dina xam waaye duma ko wax duma ko wax fii mukk because am naa gàcce pour wax war a repeat loolu di ko wax waaye moom xam na man xam naa yàlla xam na waaye duma xaar sax bu wax ma moom baalal ma aha moom mag la moom a mag mut na ma kilifa man dinaa ko jégalu Fatou Touré man dinaa la jégalu te du nekk si live bi di nekk si live bi dinaa ñëw ba si yow man ma jégalu la te noo ko buggee noonu laa koo defee waaw foo tegana faatu tuure faatu tuure ak képp ak kër faatu laay wax maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf plateforme bi yal na ko yàlla bil woon ngeen ma the professionalism in you waaw yu ma gis plateforme yu ma gis nag laa nekka di wax waxuma ñu ma gisut ñu ma gisut yëpp dama leen di boole di leen wax yéen ñëpp jërë ngeen jëf ah focus on Gambia du may jiboo ak ñoom ñoom tamit ndeysaan waaye su ma waay lañ dañ dee am some arguments rek waaye suma waay lañ gis naa ne dañ ma like jërë ngeen jëf du like bi rek waaye gis naa ne da ngeen di def ngeen def ngeen lu leen war daal because all this media house lu leen war lañ war a def waaye waaye jërë ngeen jëf yéen ñëpp Fatou Touré again jërëjëf ak the entire Kër Fatou waaw di leen tooñ nag di leen soonal di leen sonal you know di leen wane kër UDP maa ngi jégalu su fekkee daf leen den naxari waaye nit rek laa you dañoo tooñante ak politics moo ko moo ko moo ko ootee ah politics moo ko ootee waaye fu mu nekk eh Fatou yow dinaa am gàcce pour pour di la di criticiser sa plateforme sa wala di la criticiser si yow sa boppa danga ma tooñ nag woon waaye xoolal tooñ boobu noonu fàtte ko billaahi fàtte ko man maa laa jégalu man maa laa jégalu xam naa ne doo ko soxor te doo ko bon Gambien bi soxorut. dañoo wanté rek waye mang la laa jégalu te la gis man dina ñëw jégalu la dina la jox loxo dina la xok té lolu bugga naa ko def ak suma xol bu set nak di la ñaanal yalla yalla sa fan sa plateforme bi yalla yalla fanam you know gis na né nak lu Omar Yen bu mu dugalé yeen dugal ngeen ko dugal ko Twitter Billahi, wallahi tallahi wa huwa kubur dara suma bena benn jànxa bu ñewoon Gambia for um, for migration um, meeting ñu atteindre ko ñun ñun ñu atteindre ko fii nii naka naka euh, naka that hotel again benn hotel lañ ko atteindre kooku noonu nekkete mu ngi follow Gambia media moo ko gisee Kër Fatou Twitter mu screenshot ko mu seen ma ko man bu ma ñëwee nii si guddi bi fii xaw ma woon ne Kër Fatou tweet nañ ko lu Omar Waly bindoon noonu moo ma ko seen barke alquranul karim moom ma ko seen on Twitter la ma ko seen nekkete moom moom mu ngee moom mu ngee ñoo ñu seen Twitter bi mu ne ma plateforme bii laa ko gisee jërë ngeen jëf yóbbu ngeen ko fu ko kenn fogeewut yéen tamit am di gërëm suma benn broda boo xam ne mu ngi liggéey ak UN bi nekkut Gambien nag waaye waa Côte d'Ivoire rabot mu ngi Europe mu ngi liggéey ak UN bi bu baax a baax moom tam play na a vital rôle wax digga neex yàlla jox na ma xel yu bari ne ma dañ la war a jox waaye dañ la war a jox paper wone ne lu tax ñu arrest la lu tax ñu diteen la because ñu tam dañ soxla loolu pour jël pour jël critical actions you waaye bu ñu ma waxee ne dañ maa biil ma ma contact ko ne ko jarut ko because communiqué naa fa ak ñi nekk si office bi foofu ma ne leen ne su ma ko defee yaaxa Gambia la waaw yaaxa Gambia te jaralut ma ko ma text ko billaahi wallaahi ma ne ko jarut ko ma ne ko nañ ko bàyyi because wax nañ ne dañ maa biil wax nañ ne dañ maa biil bu mu dem pare woon na everything barke alquranul moo Mousis la tudda muslim la muslim la moom tamit waaye mu ngi liggéey ak gars yi UN UN yi agencies yu bari waaw ñun social media lañ mitantee waaye daf ma bugg be daf ma dee follow always daf ma dee nekk di ma message di xool si lu ma nekka because daf dee follow suma activism you know daf dee follow suma activism mu ngi doon jël serious actions waaye wax naa ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi because man nañ ne dañ maa biin waaw ma ne ko ñu bàyyi because àdduna amut solo you know am na yoo xam ne soo ko defee rek nga foog ne yaa ngi koo def pour yaaxa keneen fekk sa boppa because tey UN UN bi suñ bañatee support Gambia mun naa nekka foo years for ay ten years waaye defaluma ko pour government bi defaruma ko pour IGP wala police yi dama ko def pour the entire Gambia moo tax ma ne ma ne ko bàyyi ma ne ko bàyyi waxuma ko ne sax damaa dellu on mondi ba dinaa bàyyi ba ëllëg cause moom mu ngi xaayoon torop ëllëg dinaa ko wane mondi laay dellu um, dinaa ko ko explainal daal di leen wax ne rek Gambia buñ ko nangu never again lañ wax buñ ko nangu buñ ko nangu buñ ko musa nangu buñ abuse kenn buñ nangu kenn ku ñu abuse ñoom tamit and it's our right as as as humans it's our right as as activists it's our right as feminists it's our right as human rights fighters or defenders whoever nga ne yaa ngee taxaw si axa ak yelleefi doomi aadama nga taxaw si li nga gum taxaw for justice bul si tiit bul si ragal ñeneen ñi suñ gisee nit ku sol uniforme rek yow panique nga you know loolu daf leen dee may doole ba ñu yap ñu ñun te ñoom ñoo ñu fi nekkal ñun ñu nekkal leen fi ñoo ñun la saaf lu ñun ñu war ragal waaye dama leen di wone rek ragaluma si titu si waaye Gambia ma pare man ma pare ak Gambian si waaw waaye nak képp ko xam nak gis na sa support wala gisuma ko maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf maa ngi leen di wax igen jërë ngeen jëf mention nak waaye xam ane ne time time goes on dina len mention because gisuma comment yep gisuma ñi ñëpp waaye di leen wax ne yéen ñëpp jërë ngeen jëf bépp plateforme bu ko ne when things like this happen bu leen ko jàpp politique it's not politics xam a xamadeem réewam agressif am bi ngeen di wax man faat Diagne su ma jëma dafa am benn euh, jigéen ndeysaan léegi duñ dee communiquer sax lu bari bugguma tudda dama dama a binda ma ne people say that I am aggressive du ma ko musa fàtte kooku duma a fàtte comment am boobu mu ne ma you are not aggressive you are passionate ku ñun ñëpp xam nañ ko dañ ko xam ñun ñëpp social media bi euh, di ko ñaanal yal na ko yàlla guddal fanam may ko wér xam naa ñoom tamit political yi dañ ma dee mere xaw ma noonu laa ko waxee waaye all the things waaye du ma dee téye dara téye téyewu ma dara waaye euh, duñ understand waaw duñ understand wat maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp am nañu amelu ma kenn grudges jigéen bi bu ma waxee loolu ba léegi dama di loolu man gëmuma woon bu ko nit yi buñ ma doon wax ne da nga nga agressif sorry ya, nit ñi buñ ma daan wax ni da nga agressif da nga agressif dama as diga bot bi ci wé comment mu ne ma né agressif lo bul nangu ñu né da nga agressif nga accept ko agressif lo da nga passionate motay anything lu may def rek dama dégg gomné li yépp passion la it's not aggressiveness but ku nekk ak ni nga ti té man momuma kenn pour forcer ko mu gum man luma gum right momuma kenn ma forcer ko pour mu gum man luma gum gëm ñoom luñ gum. man mënuma leen di gëmloo man man lu gum. gëm ñoom luñ gëm dañ koo gëm te mënuma dara man may wane dat change man may wane dat Um, um, um. pour ñu mun understand Why you don't force the gum na loolu dama ma coow lu bari waaw time goes on activism bi dama si yaga. depuis 2000 an mun naa depuis 2015 when I was trafficked la nekk si activism because that that was the time I started the activism how many years now it's more than five years macoot naa si bu baax a baax xam naa lu maa def study naa human right def naa exams of human right am naa ay certificates of human right then xam naa lu maa def waaw waaye gis nga dis platforms or media moo nekk platforms yoo hamne. thank you so much ah man gars drama drame drame yi ñu ngi allah social media moo platforms plateformes hamne. xam ne dangaa dugga nu nga buggut a mel mel because dañ la ko dee melloo du ah, fooguma ni ñëpp dinañ understand suma wax bi waaye am na ñuy ko understand ni nga bëggut a mel noonu nga dee mel because dañ la ko dee meloo tey man faa Jagne bu génn si exemple ma génn si ak dof ak psycho ak ak ak yeneen manière tey yow mi nga xam ne yaa ma ëpp xel bul ñëw nga discriminate ma harass ma si kawam yaa ngi ma def ma gën a mer ginna a agressif if I was going through something yaa ngi maa def ma gën a go more than that tey xam ngeen tax many many victims of human trafficking don't want to talk because the stigmatization the traumatization the the, the, the, the, the discrimination the harassment that we are facing on the media let me tell you something we have we have more than thousands victims and survivors of human trafficking in the Gambia but they don't want to talk because why because of the society the social media bu ñoo feeñ saa yu ma demee event ak you know what they tell me xanaa media bi the nekka they don't want to see the media. And they didn't know that we need the media to help the people, to dimble dimbele Gambians. Because Gambians are going without knowing what is going on. This NPP you supported will put you in jail. <laughs> it put you already, but the biggest <laughs> one will come. Your Yo, bulmareta lo, bye, Let put politics aside you know Let put politics aside what I know I know what I know I know and when the when the time comes Gambia you will see I I promise you inshallah, allahu rabbi bàyyi leen nañ let take politics aside Okay, it's very funny when <laughs> this NPP you support will put you <laughs> will put you in jail they already put me in jail as you said yes they already put me in a mini jail mini jail Why not? Uh, why not to tell you the truth um, to tell you the truth um, I was not put in a cell honestly you know man nag bàyyiwuma leen ko de digga wax digga nii yàlla bàyyiwuma leen ko because I was so disappointed with Mike dama feel ne waxut ma digga dafa def lu mu def def lu ko nee with all waxut ma waxut ma lu nekk digga waxut ma benn digga mu def lu ko nee ba pare mu mu def lu moo def waaye wax digga nee yàlla they didn't put me put me in a shell um, ba pare um, moo nekk moo nekk bu ma demee Kayraba safur laa bu ma demee Sénégambia bi guddi jotee you know biñ defee ñu def ba pare nax ma ñu ne dañ ma nax noonu yaay yoo yaay fekk seen boppa lu waaye def sa boppa ok indi nañ um, yóbbuñ ma si sel ma benn sel indi nañ lal um, jox ma lal lalal ma ko indiwu ma lal bi sa ñëw indi lal xale yu fa nekka lal lal bi ndeysaan anti faatu sax lañ ma dee ooyee ay man naka laa nekkee kilifa nii teel a nekk kilifa nii yéen tamit bàyyi leen ma man xale bu ndaw laa yéen tamit ah waaye baax na respect la respect la respect la billaahi antifaatu you know jox ma um, lal dama bañ nag dama dama géeralee ka because jot naa reer ak ñoom bëgguma leen fiil loo ñu fiil dat much waaye comme cobuma daal I refuse you know dama am lu ma naxari because I was so stressed you know I was so stressed man su ma stressé bu ma dee gis you know because dañ ma fenal dañ ma wut digga wuñ ma digga man that's what I feel wuñ ma digga dañ ma jox lal you know ñu taal dugal ma ko si fu am AC you know ñu eesi ma bi ma liwu ma ne leen ñaan naa leen ngir yàlla fayal leen ma eesi bi ngeen bàyyi fànn moom kenn mu taal ñu fa nekk laa wax nag de de de di um, de di leen um, defuñ ma dara loo xam ne waxuma Mike because Mike already abuse my right Mike already abuse my Mike my right I am not talking about Mike Mike waxut ma lu nekk dëgga lim ma oo lim ma wax ak lim def quite different waxut ma dëgga wax dëgga nii yàlla but nag xale yi ñu fa bàyyi that's why man I don't always I don't believe they are ñi nga xam ne ñu ndaw ñoo fa nekk waaye Mike ak Dramé mooy aussi bi waxuñ ma benn digga liñ ma wax yépp amut yow force police dag ma ne damaa ñëw toog ñu waxtaan ma jógee suma présentation journaliste bi imagine journaliste bi moo drive ba moo jo drive ba euh, si si si police bi maa mu yóbbu ma ba si police bi ma dem because dama ko ne foofu laay dem mu drobaale ma because mu ngi waroon a dem